maaleykum maa ngi nuyoo waa di nuyoo di bëgg wax si mbir tuumaal bi ñu tuumaal Sonko fekkee xale bu jigéen bii la yàlla xam ne ba barke laa ilaaha illallah billaahi wallaahi wa xam naa xale bi xale bu jigéen bi da daan ñëw si sama doom di fréquenté sama doom moo taxoon ma xam ko bu mu ñëwee fréquenté sama doom daa commencé di jël sama doom da koy torox wala muy àbb ay yére samay doom ay jiin ak ay greffage yooyu yëpp léegi su ko jëlee day raar sama doom ba mu yàgg mu doog a ñëw su bëggaatee dara ñëw mujj bi day sàcc ba sama doom bi da koy toroxal ma ne ko kumba sama doom ma ne ko kii kenn du nit kenn du ko toroxal sama doom ne kii day jël samay yére te da koy tilima lay xeeñ kii naa ma nangam ba sama doom toroxal ba muy jooy si saal bi ma toog ma wax ak moom mu nettali ma lu bëri ne ma moom amul yaay ay tàntaama ko yar yooyu dafa sonn dafa tubrank day xiif mujj day ñëw sama kër du lekk ma mujj ko jàppee ne sama doom bu ñëwee damay kott naa ma yaay sama yaay waaye nekkul nit ku dëgg lu mu wax tey mun na see génn dafa mun fen te day jël waxam dafa bëri te pare su nekkee xale bu jigéen bii dafa capable dafa capable dama ko xam dafa ko capable aji dafa capable dafa capable man nee naa am naa fi ci toog télé ma wax aji kii ku capable la xale bu jigéen bi dafa capable mbal respecté wul boppam fonkul kàddam lu ko neex wax lu ko neex def fu ko neex fanaan fu ko neex dem wallahi wala yàllaa mu tiim moom ku capable la ku tëmi ngi nii bii ngeen dugal du photo bii ma dugal mooy femme bi ku bëgg a xam femme bi femme baa ngi nii xale bu jigéen baa ngi nii la kii bu amee vingt ans wala vingt deux ans si leem la xale bu ndaw la waaye wallaahi man mi am 38 ans rus naa li muy def xale bi dafa capable heure bu nekk la daan génn kii wax nii nag vidéo euh, déglu naa leeg benn audio bu dëgg dëgg la ginnaaw raay la dëkk côté Massawaranka dama ko xam bu baax moom bu ma gisee damay kott maman la may wax affaire bi dama jëlee kaw gëw ma tey bañ ma waxee moom la envoyé dama xoola dama tiit dama jaaxle waaye man lu ma gën a jaaxle dama ne xale bi lii lu ndaw lii mu def Sonko dul ko jommal xale bi dafa capable wallahi yàlla may dégg ku dégg sa bàmmeel ma luy neex Sonko man ma benn parti ndax benn parti ma njariñ lu ma am may xamay sa booy wallahi xale bi dafa capable kii li muy def lépp yaayam dafa gaañ loolu la ma wax tantam la nekk mu ne dañ koy xoolal jël nag moom xefe photo yu dugal yëpp yi ma gis yëpp ma du gis yu tubbeeg gis fépp si télé photo boobu du photom photo mi ngi nii man naa dugal photom mi ngi nii xale bu jigéen bi mi ngi nii photo yi ma gis yëpp ñu koy teg may xool dama leen ne yii yëpp du photo maa ngi nii loo tax lijjanti naa photo ba am ko maa ngi nii photo mi ngi nii vidéo bi xale bu jigéen baa ngi nii yi ngeen dugal yii yëpp du photo xale bu jigéen bi foto xale bu jigéen bi maa ngi mi ngi nii mi ngi nii nag kii mooy xale bu jigéen bi ku ko bëgg a xam mi ngi nii kii la photo yi ngeen dugal yëpp du moom xale bu jigéen baa ngi nii kii mooy xale bu jigéen bi